voilà mu ñëw aha sama gaay ziar ziarata mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey dañ déplacé waa ñëw ba fii ci Kër Massar Boune Yeumbeul plus précisément ñoo ngi koñu loos ñu ngi ñëw tey le lundi tey le lundi 29. di ziaraat ñëpp ah, sama gars yi di leen wax ne tey ñoo ngi fii ci euh, Boune. open press open press Kirikou moo woote tey la lundi 29 29 avril ñu ñëw fekk ci ko fi mi ngi war a bëre le euh, le dimanche 5 mai 2024 à l'arène nationale Kirikou moo war a bëre ak kan Papa Bari Bari Bari Bari le phénomène de Grand Yoff face au phénomène de Boune ñaari jeunes ñaari xale yu ndaw gëm seen bopp mën la ñuy def mais ñaari xale yoo xam ne macha allah seen popularité foo ko natt wees na fa. ñoom ñaar ñoo war a jàkkaarloo Kirikou moo woote tey open press ñu fas yéene séq ak moom Seydina maa la fay ginnaaw ma sant yàlla gisu jeunt bi sa sama ñaari waajur di wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yow Sénégal yàlla fi jàmm yàgg caab caab féetee ginnaaw caab na kanam waaw ñu tal su la hôpital suñu borom fëgg leen ñu gën ànd suñu borom xaaral xaaral aaj na quoi waaw sama gars yi nga ne lañ lañ lañ tee quoi ñoom caaw caaw ñoom Issa Allah ñoom def waaw ñoom Malick Dof ñoom ñëpp ñu bàyyi leen waaw di nuy waa buun baax di nuyu waa buur di kontaan si yéen di nuyu waa àdduna yëpp maa la ñu nuyu quoi. Kirikou est petit wala Kirikou a grandi. Kirikou ba tey Kirikou bu ndaw la wala Kirikou màgg na. Kirikou màggagul sax. waaw Kirikou est petit ba léegi quoi. Kirikou waaw est petit. waaw dina drainer li ñu gis tey ci open press bi Kirikou gis nga li teew ci open press bi man bi ma rombee dama ne xanaa Sa Thiès mooy open press fii. gis nga gis nga li teew si open press. non lii sant yàlla rek sant yàlla. waaw sant la respect moo leen woon moo leen bi gis nga ko. gis naa bu baax baax sant yàlla rek. waaw barki Serigne Touba dañuy sant yàlla rek. waaw gars yi joxuma dara. waaw man ma ñoom ñooy sonn si man man sonn ma si ñoom. waaw di leen sant bu baax a baax di leen gërëm quoi barki Serigne Touba ndax li yombul quoi nga woote àdduna bi yëpp teew li yombul barki Serigne Touba. kiriku kiriku ci dégg galañ kiriku ci mën a fecc kiriku saa yu ne xaas dugg ci géew xol yëpp sedd loolu lan la waaw ñun buun lañ dëgg de ñun ay doom buun lañ ñun direct buun mooy daw yaram hmm? nañ lépp fii ku ne buun ne ceer waaw ñun maa ngi wuñ dara buun ne petit ñaa ku ne buun ne abba ñu fekkee bu ñu ne waaw waaw ñun buun lañ dëgg ñun direct buun mooy daw suñu yaram fii ñun buun lañ dëkk buun lañuy tiitaroo ñun buun lañu am fii gëmuñu feneen fu buun jëmbal buun Kër Masaar hmm. ak sëñ Bamba ñun kese lañ gëm gëmuñu keneen ñun suñu direct ñu sonal ñun direct kiriku nga jël combat dugg Grand Yoff Grand Yoff nga dugg nga bàyyi ñëpp jël Papa Bari Bari Move Yo Bari Bari le jeune phénomène l'enfant de Grand Yoff nekk jeune boo xam ne mi ngi toll ci 5 combat 5 victoire masul daanu nga jël ko. waaw ah, maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax jàmm laa koy ñaanal bala 5 yi si kàddu suñu borom jàmm ak salaam yàlla ko yàlla suñu borom defal ko jàmm suñu borom defal ko wér bala 5 incha allah rabi waaw man bala 5 man gars yi abal nañu comprendre ma kii ku nga sa bopp man loolu xam naa ko mais booy booy am nga bëre bu daan papa bari bari bëre yow am nga bëre bu daan papa bari bari boobu noonu booy bu mën a boobu moom bëre bu daan moo ko de bëre bu daan Zarko moom moom ay magam di ciblé woo waaw moom nekk si ginnaawam di rayante waaw dañ ba bis ba ak Kirikou kon instant bi instant bi xel dal na. non ñun dañuy sant yàlla rek ñun pareeguñ ñu maanaam ñun waay ñu pour benn combat ñun ay xale lañ làmb mooy suñu métier ñoo bàyyi lépp ndax làmb defuñu dara dañuy xëy tëdd na ñu gars yi jàpp si affaire yi barki borom tubaab liggéeyu ma gont ma dama fenn entraînement rek laay def te li ma war a liggéey yëpp gars yi ngeen liggéey boobu entraînement kii di ko combat bi est-ce que entraîné nga entraîné entraîné ba sentir instant bii de aha xel dal na instant bii pare na instant bi est-ce que pare nga physiquement techniquement est-ce que nga nii nii pare nga. man trois mois la entraînement ji trois mois trois mois laa wax din weeru koor gi laay dem quatre heures ci ngoon laay dem din barki borom Touba barki démb rek barki démb samedi bi Kayar laa entraînement dina Kayar. Kayar Kayar laa entraînement fii ba Kayar laa dem trois mois yëpp dina la entraîné. lamb ji lu la jaral sa diggante ak Papa Bari Bari combat bi lu la jaral. la cinq incha allah ci kàddu waaw ñu xam man lamb ji la la ma jaral quoi. victoire victoire le cinq bii ñu jëm victoire ci kiriku maanaam nga bëree daan kii di Papa Bari Bari fan la lay yóbbu. non bi ma yóbbu sori ndax lamb ji lamb coow la. lamb coow la waaw ji lamb lamb ji la. lamb la maa maa ngi seetaan Baye Ndiaye si si lii si si face to face bi. ñu ne kiriku ñëwul la kiriku ñëwul man waxuñu ma signature moo tax ñëw ma. kenn waxuma signature moo tax ñëw ma maa ngi dégg mu ne Kédougou dañuy dagg dañuy dagg moom bu gërëyoo duñu dagg ndax ñu dañoo jaay buñ dollul moom bu yëgatul xaalis dagg ndax ñun dañoo jaay suñu làmb te fayuñu dara te ñun dañoo jaay suñu làmb parce que Sëriñ Tuubaa dañoo jaay suñu làmb loolu erreur de communication waaw ñun kenn waxuñu waaw kenn woo ma na ma signature mais gars yi dañu jàpp ne Kirikou dafa maan booy bi da nga a maanaam da ngay baari baari da koy sóoraale ci coow li da koy sóoraale ci jàkkaarloog moom séddoo maag yaag moom ngeen séddoo maag parce que boobu euh, dafa mën wax ah Ansoul Souleymane bari bari dafa mën a wax quoi moom mooy wax naan moom deretam tuuru moo ko gënal drapeau am cuubu instant bi sur boobu est doon ragal jàkkaarloog booy bi séddoo maag yaag moom dégguma waaw dinaa cuub drapeau am nag drapeau bi suba dinaa ko cuub. drapeau grand waaw rabi nañ xam ne dinaa cuub drapeau am moom moom drapeau bi ma koy cuub. bu taxawee drapeau bari bari. laa bu taxawee barki borom Touba billahi combat bi du mat une minute bu taxawee. kii ku looy wàcc ci mobilisation comme toujours xam nañu. xam nañu boo joge ne nga xale bu ndaw nga mais mais mais mais macha allah booy t'es un phénomène ba jayuma la man xam nga man du ma la jay t'es un phénomène ñaari phénomène ñoo daje mais kii ko booy jóg li ngay génnee bari na fi ay mbër yu mag ñoo xam ne dañ naan mbër bu mag mbër bu mag li ngay génnee mënuñu génnee xaaj bi bu ñu waxantee dëgg rek jayu ma la lu am laa lay wax mais lan ngay wàcc ci mobilisation jours yi lan ngay wàcc ci tous lan ngay wàcc ci bëre jours yi le 5 mai Kirikou nan nga koy waajalee. waaw mobilisation bi waaw da ngeen loxo bàyyi si loxo gars yi ndax ñun kenn jàppale wuñu ñun kenn jàppale wuñu kenn barki Serigne Touba Mbacke amul kenn ku yëkkati xaalis ne maa jàppale Kirikou booy ñooy jante boobu léegi barki borom Touba billaahi wallaahi taala laa la wax kenn gënul borom mooy ko booy parce que borom Touba kenn jëndul dara may ko booy booy ñooy jaayante lépp parce que Serigne Touba lépp loo gis stade booy boobu léegi combat bi 4 mois la man xëyuma gontu ma laa la man xëyuma gontu ma combat bi 4 mois la duré te nam ma dara nag li ma booy ñu si taxaw quoi di leen sant bu baax di leen gërëm quoi parce que Serigne maa leen sant bu baax baax a baax di aw ma seen fay quoi parce que borom Touba ñu ñoo jox may reyante parce que kiriku nga am ko diggante buun Kër Massar yëmbal nga ne autorité yi autorité Kër Massar buun yëmbal nga ne amu ci kenn ku la jàppale amu ci kenn ku jënd benn bloc ticket may ko kiriku loolu loolu nu mu mën a demee. amul ki yëkkati 1000 francs même boole ko ticket ñaata la 400000 amul ku yëkkati 1000 francs même. léegi jour kon nan ngeen di def ak ak yi. ku xam ku xam li ngay drainer nan ngeen di def ak bloc ticket yi nan ngeen di def ak kaari yi jour ji. booy yi laa la wax dañu liggéeyante lépp waaw ku ma bëgg a jàppale ne maa woo ñëpp. maa ngi maa ngi woo ñëpp ñi ma war a jàppale yëpp maa la ñu woon jàppale ma quoi di la wax man kenn jàppale ma si combat bi parce que borom tubaab boobu léegi nag il faudra nga woote kon les autorités les autorités de Yeumbeul Kër masaar Boune Malika Benn Baraak les autorités nañ ñëw jàppale kii di Kirikou mais wooteel. waaw wooteel gars yi ñëw jàpp ci. Ah, waaw maanaam maa ngi gërëm. ñëwal Ndiaga Ndiaga Star. loolu mënul ñàkk Kirikou nuyu nañ la nuyu assistance bi. Mhm. ñu gis seen jàkkaarloo bu mujj yéen ñaar tegante ngeen dënn. waaw da ngeen tegante ne sax na jour bi xanaa dafa jot ba ñaari xale yi a bëri ci signature mhm. gis ñëpp dañ ne papa bari ah. moom moom am na gars yi wax ne ma tax may ma tuuti Ndiaga saar nee na ba ngeen tegantee dënn yaag booy bi booy Grand Yoff bi le phénomène de Grand Yoff Bari Bari move yow Bari Bari nee na dañ ne Bari Bari moo ëpp doole kiriku loo ci tontu. Bari Bari moo ëpp doole ah, moo ma ëpp gàllaaj. moo ma ëpp jàppal moo ëpp subatel maa ko dàq daan te kat suñu borom la cinq maa koy daan ba toog si kawam. man maa ko moo dàq daan mais maa ko dàq daan. waaw la cinq daan lañ soxla te naa ko daan ba toog si kawam si kat suñu borom bu taxawee. bu taxawee bu wax duma duma duma duma yu daan ko. ki ko jàpp mu tëdd kon combat bi en la. xanaa déggoo ma bu combat bi en la. bu dawee yoor nag dina lu fi fekk. bu dawee yoor waaw mais bu taxawee dañ xeex xeex métti. caxabal ba caxabal ba yaa ngi waa caxabal ba. kala bari caxabal ba caxabal ba. <laughs> Oh, bari ma mën a këpp yéen wan. waaw ah, dafa mën a këpp yéen nga nga jaaxaan. man man damaa aay si mbër bu daanuwul. gën a daal ma koy daan daanuwul. kan gën a daal ma koy daan daanuwul. waaw waaw waaw booy Cissé ma koy daan daanuwul. Hmm. cat jeexaay ma koy daan daanuwul. waaw te ñoom ñëpp ñu si dynamique bi m nekk nii man ku daanuwul rek na ma daan la. kon daal mbër bu daanuwul na jaar sa yoon nga daan ko daan ko si kàddu suñu borom Souleymane loo am ci question. ful waa euh, ana euh, Ndoré ni waaw question Ndoré ni Mass question. gars yi amu leen question wooteel wooteel les autorités nañ ñëw jàpp ci combat parce que c'est un combat capital ah. combat la boo xam ne ñaari jeunes la ñu boole ñaari jeunes yu yoo xam ne ils sont pétri ils sont pétris de talent. dañu am talent mën a bëre aussi dañuy drainer monde bu bari dañuy drainer supporters yu bari wooteel. waaw maa ngi gërëm tamit surtout loolu maa ngi gërëm waa Yeumbeul waa Yeumbeul Malika ñoom Boy Diop de waaw ñoom Sages suñu waa écrit ñoom Petit Niang ñoom Thier ñoom Joson ñoom Maladio suñu waa écrit maa leen gërëm bu baax baax di gërëm waa Yeumbeul yi ñëpp waa Kër Massar Temba gars bi dañoo teew waa Malika waa Town dañoo teew waa Grand dañoo teew parce que Serigne Touba Mbacké waa àdduna ñëpp a teew fii nii tey maa ñëpp booy bi kooku waaw ah, booy bir maa nga ñaan si commande bi mu jëm suñu borom may xëy na mu job de booy bir bërki dé moo ma jël si fii yóbbu ma Bakayar ñu entraîné ma nag moom di ko wax yàlla nga yàlla suñu borom may nam si kaw maama lañ bu ndam bu rëy si kaw si dëba ngo sakees maa nga ñaanal ndam waaw ndam waaw di nekk si équipe yëpp ñu am combat suñu borom may leen ndam ñu amul combat suñu may leen combat quoi waaw woo les autorités nañ ñëw jàpp ci combat bi. waaw maa woo maa ngi woo ñëpp ibil naa ñëpp ñëpp bunt yi barke Sëriñ Tuubaa ibil naa ñëpp kenn jàppale ma la wax dara laa la maa ngi woo autorités yëpp maa ngi wax ñu jàpp si combat bi jàpp leen ci waaw maa ngi mel maa ngi woo Abdourahmane Lay si combat bi baax baax baax Moussa Camara maa ngi woo si combat bi bu baax baax baax Fallou Mam maa ngi woo si combat bi mhm. Tafa ba dem France. Tafa maa ngi koy woo si combat baax a baax a baax. Mhm. sama papa Galas. Galas waaw day son si man barki borom Touba. Mhm. waaw maa ngi koy woo si combat baax a baax a baax di woo ma fi yaa caare bi yëpp. mokkat mhm. maa ñëpp maa ngi lay woo si combat bi. Khalifa Lo maa ngi koy woo si combat bi. maa ngi koy woo si combat waa dental maa la ñuy woo waa xayra waa diiso waa entente waa set loxo waaw buñ jola buñ village ñëpp waa buñ Tioba maa ngi woo ñëpp di woo waa Mbedd di woo Mario Mbaye Mario Mbaye maa ngi lay woo nga jàpp si combat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Mario Mbaye jël nga bëre yëpp Mario Mbaye combat bi so combat la ndax kenn jàppalewu ma kenn jàppalewu ma si combat bi kenn ku yëkkati dërëm jox ma parce que borom Tuubaa maa ngi lay woo si combat bu baax a baax a baax a baax a baax nga si nga bu baax di woo sama liggéey Talla Fall maa ngi koy woo si combat bu baax a baax mu jàpp si sama liggéey Cheikh Mbacké maa ngi koy woo si maa ngi koy woo si combat baax a baax a baax a baax suñu yaay Aïda maa ngi koy woo si combat bi Tafa borom France Tafa borom France maa ngi koy woo si combat sama yaay waaw kooku dafa sonn si man kooku weeru koor gi ba ba mu jours laa gëj fii barki borom Touba ba koor gi ba koor la koor laa fi fi duggaat muy sonn si man def si man xaalis bëri barki Seydina Mahamad koor koor gi laa commencement koor ba koor gi jeex barki borom Touba bu fekkee laa bu fekkee laa naa daan parce que borom Touba koor gi ba koor gi jeex yàpp yàpp laay reeree parce que borom Touba sama yaay ma di maa ngay gërëm ko wax dama ko wóor ma ngay gërëm bu baax a baax a baax looy wax ci coach coach Thier coach Thier waaw nekk coach bu soxor nag nit ku bon kooku bu jàppee booy entraînement da leen teg lu métti gi xam naa ko bu baax mais Thier yéen ak Thier bi ngeen nekk xale bu ndaw Thier nekkoon fii di toj làmb yi tey mu ñëw uuf ay rakam boo ñëwee fekk leen entraînement du leen may dara jour combat jour combat pareil day taxaw n'est-ce pas jour combat day taxaw après combat day taxaw lan ngay wax coach Thier Thier Baba Gane kooku kooku amuñu fayam ñun kooku amuñu fayam parce que borom Tuubaa kooku lu ñuy daj kooku lu muy daj ñun amul kenn ku koy daj ñun Baba Gane heure entraînement bu jotee Thier dafa yor jabar yor doom barki Sëriñ Tuubaa dafa yor jabar yor kër la yor kër kër barki borom Tuubaa heure entraînement bu jotee ñun moo ñu fay jiitu ñun barki Seydina Muhammad billaahi wallaahi taala te joxuñu ko dërëm defaluñu ko dara amul dara loo xam ne ñu nga koy defal ñun yàlla ko yàlla fay xolam waaw suñu borom da ngay fay xolam barki borom Tuubaa yéen moo am suñu yàlla nga yàlla suñu fay ko yéen am suñu ñun yàlla ñu fay barki borom Tuubaa li mu ñàkk ci làmb li mu ñàkk ci làmb yàlla na benn poulain bëri ba am yëkkati kër jox li mu ñàkk ci làmb yàlla mbëri buun yëpp indil ko ko mbëri buun yëpp barki borom Tuubaa maa la ñaanal ñoom ñëpp waaw lu buun dafa war a gis champion yi buun yi a génn am ay champion buun am ay ndaanaan kay waaw kay Ndiaga Sarr jaan bi lan la jaan bi ah, jaan bi lan la waaw loolu sant yàlla rek sant yàlla rek da daa waaw Baye Fall la borom daaru borom daaru borom yeewi woo combat baax baax baax moom combat bi combat am la papa Assane borom Malala maa ngi koy woo papa Ousachi maa ngi koy baax baax a baax di woo waa Mbour di woo waa Mbour bu baax Assane papa Assane Niang maa bu baax. waaw sonn na bu baax baax baax sama taalibe koñ yi. Mhm. booy taalibe yi fii seen waaw waaw barki borom Touba keroog ma jox ñoom ñoo dem yàlla waane ñoom yëkkati barki borom Touba di ma jox barki <laughs> baax ndax mi ngi jàpp si combat boobu ba léegi barki borom Touba te amul dërëm moo yëkkati jox ko borom daaru tamit maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax a baax borom daaru combat bi sa combat di kontaan si yéen di kontaan si waa àdduna di kontaan bu baax di kontaan si waa koñ bi tamit waaw gars yi na leen baax a baax a a dal ak yar ak teggin barki borom la cinq ma liggéey ay seconde ñëw gaa yëngal ci kaw looy def ci suuf suuf man damay yëngal man moom damay yëngal. rendez-vous rendez sama gars yi bu Loos Kirikou bu Boune face à Bari Bari bu Grand Yoff bu ko kenn nettali ma leen di joxaat dig daje ba beneen yoon. ziar ziar pile 10 heures pile 10 heures pile 10 heures pile. 10 heures ku fekkul stade. rendez-vous 10 heures. grand combat beeg ku fekkul stade 10 heures say suba ca damay bi. féete na boor. sama gars taxaw ma nag bi. Mario Mbaye la. combat bi sa combat la Fallou Mam combat bi sa combat la gannaaw Taba borom France barki borom Touba combat bi suñu yaay Aliou Seck waaw Galas tamit sama papa Galas combat bi sa combat di wax waa Moket waa Thiaray ñoom ñëpp ñu ñëw si combat bu baax a baax a baax di leen gërëm yéen journaliste yi di kontaan si waaw di masko bu baax a baax si coono mi daj waaw maa ngi waa Boune yëpp di woo waa Boune lépp la 5 si rafet na sama gars noonu kii ko Papa Bari Bari le 5 mai à l'arène